xaritam yi muy àndal yëpp ku ci ne gis naa ko wax ne fu ngeen ko gis wax leen ma ko woo leen ma téléphone ne moom mu bërëb sàngam ma fexe ko indi xam nga man dem këram du ma yomb ndax ñi ma ma faa dugg waaye yabal naa ko koo xam ne xam na yére ya muy sol xam na fa ay yéram nekk te bu soobee yàlla dina la ko indi bismillah entrée asalaamaaleykum tey laa xam ni maa ngi soog a dund xam nga la laa rëccu lan moo tax ma yéex laa xam <laughs> man lu ma metti mooy dama laa bokk ak nit te nit boobu moo ma ëppale ci yow ndax man saa yu ma yeewu man kese may nekk ama yow tamit <laughs> kenn nëw fi yow kese rek kot donc yow rek yaa fi nekk <laughs> kan xan a kontaan nga ma gënal kañ mooy gis la léegi léegi léegi solu naa ba pare maa ngi nii di génn wuy ma yow rek lay xaar bul yàgg de suñu gisante tey ñun ñaar xam nga ne mënul ñàkk xaaral ba nga xaaral ba nga jàkkaarloo d'accord tout à l'heure ok Papa, xaaral génn mon partenaire yi suis ñi ma la doon wax Georges sama rendez-vous ak ñoom la te partenaire yi ëpp ci sama partenaire yi laa war a gisanteel tey sax ma dama xaw tardé. mais ni ma def waaw kookan la Ousmane kaso yow xanaa xamoon ne sa kaso bi dérangé wu ma parce que dama xam ne li la war a dal kaso ci gën a ndaw yow fecc ko ba déwén mu jig la dañ la ko jiñ du yow gis a góor dara ñàkk kóllëre ah papa yaa ngi toog waaw maa ngi toog waaw papa gis naa Omar Omar foo ko gisee ci mbedd bi nekkete la fanaan waaw bi nga ko gisee mënoo ko na nax ba mu ñëw papa Omar moccu naa kaa mocc ba sonn mu lànk bañ ne du ñibbisi hmm. waaye nag liñ ko wax hmm. man mi buñ ma ko xoon ma génn kër gi dem ndax hmm. naka la sa yaay mën a tiime doom naan ko gis la ak gis sama butit yaa yemal ah mu ngi noonu de mu ngi noonu de man su ma waxee ñoo ne damaa bari wax su ma waxee ñu ne damaa tàng xol mu ngi noonu de. ah waaw yàlla baax na. yàlla baax na waaw maa génn te waaw baax na waaw. demal te ñëw. leena nga ne gis nga Omar. nga soo ko gisaatee nee ko sa yaay nee na nga ñibbi si kër gi. Ah, dégg nga baax li ma la wax. bis boo ko gisaatee rek nee ko sa yaay nee na nga ñëw ah. d'accord. ma la ba tey laa xam ni maa ngi soog a dund xam nga la laa rëccu lan moo tax ma yéex laa xam من الله يدف؟ أنا لا بين خريق من أنا فجأة نيوم سخلتي يالا xamante ne yaa doon dëkk suñuy nopp naan bu nit génnee aduna buñ ko joy nañ ko ñaanal kon bo défé ni ñun lan lañu wara def ah non way bay li ngay def ñun ñëpp ci yalla lañu juggé té ci yalla lañuy délu nañ ko ñaanal rek fa mu juggé fa mu jëm gënal ko fa mu juggé yaay ñaanal ko rek moo gën nii ngay def bul def li dima ma jaaxal yow waaw noonu la. ça va naka wu. yaa ngi fay ni nga def. waaye gis nga. Eh, ni nga def baax na. ba yaa ngi ci jàmm. ça va. waaw en fait maa fi doon bëgg a jaar. pour juste ñu tenir benn waxtaanu cinq minutes quoi suma ma diggante ak ndax eh, xam naa ni nekkoo jigéen bu bon quoi. ndax bu doon deux jours sax. nekk nañ ko man ak yow. kon xam naa sa jikko bu baax a baax. dafa fekk ni nag xëy na ay influence wu parent moo la moo ci li nga dugg nii mais je sais que ni ak souffrance yi ma dund yëpp xam naa ni man mënoo ñàkk ci man quoi ci man nga bokk quoi. Hmm. yow aussi xam naa mën nga bëgg.

heure bu ma jaaxlee ci yow lay ñëw te mësuloo ma woon beneen kanam wala sa jabar ma ko li ma décidé nag bëgguma nga dégg ko feneen di ma mere ndax usmaan daf ma takk ma toog fi ma fi ma dëkk di ko muñal boole ci bëgg ko ba mu jeex takk muñal ko fi ma dëkk ma toog fax di ko xaar boole li ma neex ak li ma naqari ak li mu am ak li mu ñàkk kenn xamu ko ma toog ak sama ngor mu jëndee ma beneen jigéen takk jabar bi sax dérangé wu ma parce que jigéen laa lu jigéen di am am naa ko mais mënoon na ma ko yëgal ki ma gis nga taxaw moom sànq kan la. waa kii mooy Adama Fall moom nag sama ex la moom laa doon génnal génn bu yàgg génn xale yooyu rek mais bàyyante nañ mais gëmul ba tey ne bàyyi naa ko dafa may harcelé fu ma tourné dafa may woo di ñëw suñu kër dama doon génn rek taseeg moom ci bunt bi. lenn benn affaire rek laa lay wax damaa bëgg nga déglu li ma lay wax bu baax. man du ma mag mu xale di fooy sama diggante ak yow ay risque laa jël wan la mbëggeel ba mu jeex tàkk lu ma ci góobee gar ko amul dara looy bëgg suba ba ci ngoonto duma ko def yow lépp loo bëgg dama la koy defal mais man lenn rek laa bëgg nga xam ko su fekkee ni sama diggante ak yow leneen daf ci commencé di xew wala nga may boolee xale yu ndaw yii man loolu duma ko nangu parce que wax naa la ko depuis ñu commencé génn man ak yow tànk caaxaan taxu ma jug kilifa la responsable laa lu wóor te leer laa bëgg su fekkee ni nag dañuy nar a continuer nii man damay arrêté sama diggante ak yow parce que lii mënul continuer. ah yow tamit wàccee kii bàyyante nañ. mais bàyyi nga ko et puis yaa ngi taxaw ak moom. moo ngi wax mu ngi lay jege. Euh, Nafissatou tout d'abord de jégalu parce que ce vrai Ousmane bi mu takkee jabar man maa la ko waroon wax waxuma la ko. man xam naa da nga am kersa moo tax nga wax sa jabar pour mu wax ma ko ma comprendre la ci torop nag mais boo déggee Ousmane dama bëgg nga xamal ko lii ma la wax ne ko amatu fi jabar à partir d'aujourd'hui dinaa ne ci li ma neex. kersa moo tax. mënuma la ko wax ndax Ousmane du ma la nëbb bi ñu eggee Ousmane dafa changer comportement hmm. changer comportement am yeneen àndandoo bon du moom rek ñu ci bari ñi nga xam ne ñu ngi foofu ñu ci bari ñuy dem bu ñu eggee tubaab bi yàq leen ñu changer comportement li Ousmane di jëfandikoo li muy def yépp sax mënuma la ko wax jëfandikoo waaw mënuma la ko wax eh, ci gàttal daal Ousmane du nit ku baax te yow suñu diggante nekkatul diggante nit ak jabaru xaritam sama rakk nga décision bi nga jël nag dama ciy ànd ak yow di wax ne tu as fait le bon choix. suma nit nga dangaa bokk ci man. te pour ma fir la loolu di nga xam ni sama diggante ak yow dootul Ousmane moo ko waral parce que Ousmane man bàyyi naa ko dama ko suur dama ko suur këll parce que ku nekk ci ndab di lekk di jiiroo suuroo bu ndab la jeexee boo ñeddee da ngaa gàtt xel Ousmane du ma xaar ba ma toroxal toroxal bu gën a rëy bii. tu as ndax xaar nga Ousmane ci nu ne guddil nga ko bëccëgal nga ko xiifal nga ko maral nga ko terewul ba mu waree takk jabar dafa dem takk jabar. d'ailleurs sax yow Ousmane ki mu takk xam ko. bon xam naa ko nii daan na ko doxaan mais man d'ailleurs man mosuma neex mosuma bokk ak jotaay. Mm-hmm. waral ba muy dem di takki di ñaani dama ko ne du ma bokk ci lim bi lay ñaanal jabar. oui ma kii bàyyante nañ jeex na non d' accord c'est que dafa am yoo xamante ni bëgguma ko rek. d'ailleurs sax bu naree continuer nii dama koy porter plainte dégg su naree indi benn problème dinaa la jox numéro baabu seen central. Mm. nga woo ko téléphone yu arrêté ko mu jeex. mais sagaru nit yi mais lay na encore il fois xamal ki nga ama affaire xamal ki mm. ay sagaru nit yi bu yàqu sa àdduna. waaw ah, baal ma jeex na. ah mais. wàccal bëgguma ngay mais non mais. franchement kontaan ngi jégalu dégg nga d'accord. baal naa la reetaanal ma xool. Ah, nan laay reetaanal nga mer la ma xool ah. lenn xamal ki nga amal affaire mooy kenn. ah d'accord reetaanal. reetaan na. waa gis nga nii laa la xamee yow tamit. <laughs> man duma la ñor mais comme que heure liggéey nag laa ñëw. damay daw mais dinaa ñëw kër ga ndax faa ma seet si siin dama ko nam ah, toogal nag toogal tuuti nag heure liggéey la nag mais dinaa ñëw kër ga ma seet si madame insha allah toogal non bàyyi ma dem grand yow kay dootuñu gëj a gisee insha allah waaw mais xaaral xaaral ma jox la paas non non non non non déglu ma déglu ma am grawul téel paas ci li waay Fall yow man duma la ñor yor naa xaalis foo jëlee xaalis fu ma jëlee xaalis Ousmane hmm. moo ma wëdde mu yónnee na ma xaalis bu bari merci beaucoup. dama Ousmane ma waxoon enveloppe bi pour nga jox enveloppe. non non non c'est pas grave bu fekkee ko après heure boo décidé pour jox rek merci beaucoup grand. la ko téye du coobareem tekk lay wut rek bés bu tekkee nga gis ko. Ousmane na fi Ousmane dafa takk jabar démb rek ñu ma agressé guddi gi ma nekk fii di wër Omar su ko sama yaay yëgoon lan laa koy wax waaye agression bi moom je le garde que pour moi je le dirai à personne Omar fan nga nekk wër naa la ba sonn fépp fu ma xalaat ni que war nga fa mën a nekk dem naa fa di la seet gisuma la lenn rekk lay ñaan yàlla balaa may tëdd tey ci kaw la mu wanale ma ak yow indil li nga yor sëñ bi yoruma dara sama doom laa si indil li nga yor sama nda yoruma dara nga yor indil nga yor indil indil way sama nday rey sama doom